asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ministre de la santé Ibrahima Sy ñu lay delloo am nuyu bu baax ak mboolem délégation bi nga ànd ak bépp tàmbale ci gouverneur de la région de Diourbel ak préfet bu Mbacké ak mboolem ñi ngi ànd ak ñëpp rawatina secrétaire général bi nga xam ne at yi ñuy njëkk a tàmbali organisé màggal Tuubaa gi 2008 2009 boobu moo fi nekkoon kon xam na liggéey bu baax bàyyiwuma kenn dégg nañ kàddu yu baax a baax rafetlu nañ ko bu baax ndax yëg nañ ne na ma ko waxee woon démb rek def ngeen ci yitte def ci taxawaay rawatina li jëm ci wàllu wér-gu-yaram ndax wér-gu-yaram moom moo war a jiitu lépp ndax li wolof fi di wax naan soxla bu dee ñaar boo wér dafa kon wér gu moom mooy jiitu lépp day loo xam ne ku ko ko yàlla defal bari nga ko yëg day fekk nga ñàkk ko yàlla dañ ci yàlla musal màggal gi xam nga ne ay millions yi nit a fi daje euh, kon nag bu yàlla defee lé ma daa wax rek la sëñ bi daal daa wax naan ku la jàkk bu ko ne gees ndax bi ngeen fi toogee yàggagut waaye yéene ji ak yitte ji gis nañ ko te njabootu Sëñ Tuubaa moom loolu rek la ñuy ànd ak di teraanga akuk yëg ndax lu mu doon rek Sëriñ Tuubaa defal leen ko ba noppi waaye nit nag bu nekkee ci li ko gën a ñor di léppam nit nag bu nekkee ci li ko gën a ñor di léppam nga wane ci sa yitte ak sa taxawaay loolu dañ koy rafetlu bu baax kon ñu ngi lay yóbbanteem ñoo ci sa kilifa yi la fi yabal di lay eh, nuyu yow itam di leen sant leen sant bu baax di leen gërëm ci turu Cheikh ndax yàlla def na moo leen waroon a yàlla def mu bokk ci bis yi nga xam du ko ubbi da koy def xalwatu dal ak. docteur Sorang ci taxawaayam ak yitteem ci jàmbaaram ci liggéey bi di nuyu directeur hôpital Matlaboul Fawzayni ak Ndeye Maguette Dieng di nuyu directeur hôpital Ndamatou bàyyiwuma kenn daal boo limee da ngay juum waaye li ci am solo daal mooy yitte ji nga xam ne waa commission bi yow wàllu santé ci euh, comité organisation bi at yëpp ñu ngi ko daa wax ndax daanaka. mooy li jëm ci wàllu kër docteur yi mooy garab yeeg ndax xam nga ne nit ñi bu ci waxtu màggal yi ay téeméeri poste euh, poste lañ ci def ngir nit ñi mën cee fajoo mottoo ñaar téeméeri million kon bu ngeen ko yóbbu ba huit cent loolu kon euh, yëkkati ngeen ko bu baax kon day mel ne ba ñoom ñuy sàkku ñu yokk ko sax dañoo waxoon ne màggal gi dox na fukki at a nangam te daanaka li mu yokk bariwut te nit ñi ni ñu yokk ëpp na ah. kon bu yenn ngeen xaymaale seen bopp ba jiituñu ci loolu ak cant ak gërëm képp lañ leen ci amal di ñaar bu baax yàlla dimbali leen ba noppi indi fi wér gu ci réew mi ndax li ngeen wax màggal gi dafa tombeek nawet te nawet ku ne xam na day àndaale ci jàngoro yoo xam ne bu dara xewtoon itam day am bu ànd ak mbooloo mi dajaloo te am na ci loo xam ne li ci ëpp ci ndox mi ak weñ yi ci lay jaar wér-di yu bare bari yooyu yëpp ci gàttandu gi la bokk kon nag ñi ngi ñaan ñu àgg ca jàmm te yàlla suñu borom bi nga xam ne mooy saafara ndax mooy teg mooy technique mooy technique jàngoor waaye moo koy saafara yàlla na ñu dimbale ba màggat gi ñu génn ci jàmm te kenn bañ a wér di ndax màggat gi moom nañ ko waxee woon deux mille vingt deux rek suñ suñ bakkan jëraluñu ñàkk jëfe ndigalu suñu Tuubaa kon nag yàlla nañ yàlla dimbalee ba fekk ñu nekk ci jàmm rek ndax moom bu leneen bu bu ak wér di amoon du ci yàq dara kon nag loolu moom dañuy ñaan yàlla dimbali ñu ba màggal gi ñu àgg ca jàmm te dara bañ a xew lu dul jàmm bu jàllee itam dara bañ a amaat lu dul jàmm wala rawat na ci waat wér-gu-yaram kon ñu ngi leen di beesal ak cant ci tuuru sëriñ bi leen ñaanu bu baax yàlla kàttandal leen ndax yaakaar ji yaatu na yaakaar ji nit ñi am ci yenn yaatu na te lépp yaakaar rekkata a kon nag yàlla suñ suñu borom dimbale ba yaakaar ji ñu am ci yàlla bañ ko tas ndax loolu mooy doon njëriñu nit ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu